waaw euh, ñun doomu Kédougou yi dañu initier bisu tey jii organiser forum ndax umpale woo leen ne euh, tey la dernier jour des seize jours d'activisme tey la aussi euh, la journée internationale des droits de l'homme et on se pose tout le temps la question à savoir est-ce que droit jigéen ñi respecté nañ ko au niveau de Sénégal est-ce que droit jigéen ñi nekk Kédougou respecté nañ ko au niveau du Sénégal alors tey jii moo waral ñu toog ñu ne dañu bëgg a xam les droits des femmes dans les mines jigéen ñi nga xamante dañu nekk au fin fond de Kédougou nekk dans les Dioa Dioura yi nga xamante ne jigéen ñi bis bu nekk ñoo ngi fay ñàkk seen bakkan jigéen ñi bis bu nekk ñoo ngi fay jànkoonteel ay jafe-jafe jigéen ñi bis bu nekk ñoo ngi fay feebar te kenn leen assister nga gis que ne jigéen ñi ñoo ngi ci danger ndax euh, mercure bi nga xamante dañ ci nekk en contact ba tax na tey jii réseau femme réseau des femmes engagées de Kédougou jóg ne que dañu bëgg jàppale jigéen ñooñu ndax umpale woon ne ne Kédougou am na sax li nga xamante moom mooy traite humaine jigéen ñi nga xamante ne dañ leen di jënd njaay jaay ñëw jaay leen waa Kédougou defloo leen naka su dul noonu loolu yëpp ñun jigéen en tant que jigéen ba ñu jógee taxaw mu am suñu càmmiñ yi nga xamante ne dañu ne réseau des femmes engagées de Kédougou liggéey bi ñuy def ñoom duñ leen seetaan ñu wéet ci dañuy organiser ñu nit le réseau des hommes engagés de Kédougou ñoo jàppale leen ba tax tey jii ñu mit ñu def déplacement ñëw si ñun tey jii ñu gis que ne violence basée sur le genre doomu Kédougou yaa ngi koy subir bu baax a baax a baax a baax doomu Kédougou yaa ngi siy jooy ndax jigéen ñi Kédougou yi tout le temps lii di violence économique ñu ngi koy jànkuwanteel lii di violence verbale ñoo koy jànkonteel lii di violence psychologique ñoo ngi koy jànkonteel donc genre violence yooyu la wax ne ne en ce dernier jour de ces jours d' dañu bëgg vraiment mu dakk dans la région de Kédougou ko jigéenu Kédougou mën a sentir seen bopp si les retombées des mines ndax umpale woo leen ne daaw si heure bi le 21 janvier organisé woon nañ caravane régionale boo xamante ne dafa réunir woon mbooleemu jigéenu Kédougou yi nekk si région bi ne ñun dañu doon sàkku que ne état bi jagleel jigéenu Kédougou yi ne serait-ce pour cent la di fonds minier jagleel ko ñi nga xamante ne c'est des porteurs de projet jagleel ko ñi nga xamante ne dañu am seen GIE au moins ces ce fonds la dina leen permettre ñu autonome financièrement fonds boobu dina tax ñu mun a jàppale seen i njaboot fonds boobu dina tax ñu seen vulnérabilité mun a wàññeeku moo tax nag ñu ngi demander l'État du Sénégal xam naa ko laa biir la te xam naa su ma déggee du déggee lii am na yërmande si jigéen ñi si mois bi dina jagleel jigéen ñi au moins 2 pour cent si fonds miniers yi ndax am na article 115 boo xamante ne euh, am na fonds boo xamante dañ ko jagleel uniquement pour les femmes malheureusement fonds boobu amul kenn si ñun ku mën a wax na ne fonds boobu man maa ngi ciy gis sama bopp. donc fonds boobu lañ ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yelloo bu ñu demee ba fonds 2 pour cent yi ñuy demandé code minier bi bu ko prévoirul wala mu jafe ñoo ngi demandé à l' du Sénégal puisque chaque année. les ressources les les les miniers euh, les sociétés ñoo ngi injecté ci keesam 100 milliards. si cent milliards yooyu mu jël ci deux pour cent jagleel ko jigéenu Kédougou yi au moins mu permettre ñu autonome. bu ñuy wax ci pauvreté Kédougou on a les larmes aux parce que mënuñu wax ne tey jii Kédougou Kédougou am na fer mënuñu wax ne Kédougou am na or Kédougou am na marbre Kédougou am na or am na diamant diamant sax am na Kédougou. tey jii ñu ne ñu dëkk boobu nga xamante ne dafa riche en ressources minières riche en ressources naturelles ñu ne dëkk boobu tey jii moom mooy deuxième dëkk bu gën a ndóol ci Sénégal te du n'importe qui ñoo def saytu boobu de moom moo def saytu boobu wax ko wax ko waa Kédougou bu information boobu nag ba mu jibee ba léegi ñu xam ne ne ñun en tant que doomu Kédougou pauvreté extrême yi ñu dund dañu war a xeex ba suñu rakk yi bañ a dund lu mel noonu pauvreté extrême bi nga xamante ne suñu yaay yi dañ ci dañ ko dund dañu war a xeex ba pauvreté boobu dakk si biir Kédougou loolu moo ñu tax a jóg parce que bu leen fàtte ne que de ñun pauvreté extrême boobu jaar nañ ci man personnellement jaar naa ci donc est-ce que dañuy continuer en tout en sachant que Kédougou am na ay ressources minières ñi continuer ci pauvreté boobu suñu rakk yi ñoo dund pauvreté boobu suñuy sët suñuy doom ñoo dund ci pauvreté boobu moo tax nag ñun le réseau national des femmes engagées de Kédougou dañu boole suñu am boole suñu doole suñu mën-mën région boo dem tey am na benn présidente antenne bu réseau des femmes engagées de Kédougou département boo dem di nga ko fa fekk euh, arrondissement boo dem di nga ko fa fekk dépa euh, euh, commune boo dem di nga fa fekk le réseau national des femmes engagées de Kédougou ba ci quartier yi ak village yi am nañ fa ay représentante parce que dañu ko ne dañu ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam ndax ñun bu ñu fab ñu boole suñu doole yuuxu wàllu ndax ñu ñëw wàllu si ñu donc tey jii vraiment dañuy remercier autorité yi ndax déglu nañu recevoir nañu ku ci mel ne que le ministre des mines ku ci mel ne que aussi la directrice DEC euh, Astou Diouf recevoir na kii dëggante naa ak moom téléphone le ministre en personne dëggante naa ak moom téléphone vraiment euh, dañuy rafetlu si déglu d'abord bi ñuy déglu mais aussi dañuy dañ leen di ñaan ñu def ci ay jéego pour que pauvreté extrême bi nga xamante ne ñu ngi koy dund à Kédougou mu mën a dàkk ndax ba ëllëgee ñu mën a wax ne ne Kédougou nekkatul deuxième région bu gën a pauvre ci Sénégal mais Kédougou moo yor économie Sénégal li nga xamante ne sax moom mooy main d'œuvre locale bi d'abord gis ngeen ne temps yii passé waa Xosanto moom lañ doon xeex pour am main d'œuvre pour ñu mën a liggéey si li nga xamante ne moom mooy ci société yi ne serait-ce que journalier même tout en sachant am na xale yoo xamante ne c'est des diplômés mais malheureusement ba léegi mënuñu am liggéey doomu Kédougou yaa ngi jooy liggéey dans les sociétés minières amuñu ko doomu Kédougou yaa ngi jooy main d'œuvre locale amuñu ko doomu Kédougou yi yaa ngi jooy li nga xamante ne moom mooy contenu local amuñu ko donc loolu yëpp wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaan yàlla ñu am ko au niveau de la région de Kédougou